waay bi sëy na ñu seetaan far ba Ngom tuuti rek ci écran bi nii xool kii kiyam xool émansam rek pour ñu gën a bañ a jaawale ko Farba si ngor laa wax ak yooyu boo defee ñu xam ko Farba bi moom eh, ñu ñu xool ko bu ko defee ñu gën a xam ba bi may wax bu ko defee ma soog cee def commentaire yi ma ci bëgg a def ndax démb ba léegi muy démb ci alxamis ji ak ajjuma ji yëpp ensemble la ni yendu daanaka fa lañ yendu fa lan xaw fanaan waaye da xaw a rus sax sëy naa ma xool far ba <coughs> maa ngi jéglu ñu ni seetaan nag hmm. waaw waaw waaw kon farba mi ngi noonu <laughs> jàpp naa ne xàmme nañ ko <laughs> Euh, mooy wax naa sama lamtoora bi lamtoora Macky sàll bi waaye démb danoo xool ci discours yi nga xam ne far ba wax na ko discours yooyu da ngay na nag discours yu ko gën a deltu ginnaaw ci assemblée daanaka rek da wax ne xamoo ko démb dafa wax ci discours wax ne usmaan songo nanu bu nuy woote bisse yi nan ci boole euh, nan ci yokk euh, nanu boole waale ci bisse bi fu ñuy maasaas ndax euh, te góor ñi nan maase góor ñi jigéen ñi maase góor ñi waaw waaye koo xamante ni dangaa bàyyi si ñaari soxna dem ñu lay maase euh, loolu nan ko boolewaale ci bis yi ndax man mii damay nekk dëkk kër damaa yëgoon ci sareet nangam waa joo xamante ni kenn xamul lan rek loolu lu mu wuti assemblée laa xamul man soo nga nekkul ensemble waxuñu ci problème boobu kiiwut problème boo xam mi ngi nekk ci loxo yoon nga cee wax waxande démb tamit eh, tey jii bi mu ñëwaatee lu mu waxaat Ousmane songo site bote maa ko tudde noonu maa ko tudde site kii massage xaw ma maa ko tudde noonu man maa ko tuddee waa na wax ci koo xamante ni da mujj wax dëgg yàlla nit ñi danoo jaaxle ndax bin gestoo gisuñu kenn mooy Ousmane songo mi mi kii di waxal démb ba tey ñoom gisuñu ko songo du député nekkatul ci yéen yéen lan jox ngeen liggéey nga yow amoo benn discours booy def lu dut Ousmane songo nii Ousmane Sonko naa Ousmane Sonko nangam loolu nag wax dëgg yàlla day wane rek fi niwoo député yi toll wala fi niveau Farba toll boobu fi niveau Farba toll. Aji Sarr fan yële defoon na fi benn conférence na Aji Sarr aji Aji Sarr aji su noppee sax dinaa ko yóbbu Màkka waaye léegi kii tey ëllëg si biir tey. Euh, kii tey ëllëg si biir tey bu nee ko Ousmane Sonko euh, moo nekkut ci yoon ndax dana doon lu ko bett ndax tey bu nee ko ay na Ousmane Sonko li nga ko doon jiiñ moom la ndax bu boobaa dina ko bett du ko bett koo côté bu nekk yaa ngi ko koy taal tey ëllëg ndey si biir bu ne ko woon ay la yéwén waxal Ousmane Sonko amul <coughs> ndax du làqu ci di jooy nii di kii koo xam yow def nga sa siisement ba noppi. fépp fu ñuy waxee da nga yëkkati kàddu bu nit ñi tëddoon wax jooju buñ ko bàyyi woon mu nelaw sax di nga ko jéem a yee ci nit ñi ngir yàq emaasu kii ak nangam beneen bi ci des Farba nee na troisième mandat bi dañ koy def te dañ leen di dóor loolu yow loo xam ne yow bu troisième mandat doon am kon moom mooy wane ne euh, patron di président Macky Sall moo taxaw bëccëgu dara kàmm ne <coughs> troisième mandat du am Mimi Touré mi nekkoon seen premier ministre nekkoon ko. bi mu xamee ne troisième mandat da ngeen ko bëgg moom da ko jaral mu bàyyi kon kay mooy wane ne troisième mandat mënul am xalaatuñ waaye ñoom nag léegi seen procès nag dëgg dëgg ci leen ko boote ba ci seen bisse yi ñuy wax sax danaa deux mille vingt cinq bu ñuy natt nangam bu ñuy def nangam te Mimi Touré waxoon na leen ni leen bisse yi ñuy indi suñ ci gisee deux mille vingt cinq duñ ko woote te loolu dañ leen koy wax ne leen bisse deux mille cinq bii loolu bokku ci ndax parce que. bis budget boobu bokkul ci seen programme bokkul ci seen seen kii yéen deux mille budget vingt euh, deux mille vingt quatre ci ngeen yem ci la seen kii yem kon koy du ci bokk Macky Sall liyaar na kii bi loolu mun naa léebu naa leen làkk naa leen kàll naa leen ngir bëgg ngeen xam troisième mandat nee na man lu xiinu rek taxu sénégalais yi da ko laaj nañ ko fi mu ne misaal na ko ba misaal ko ci ne jullik ki ñaar ràkk la doon ne fi may séentu ak di ma fa xaar duñ ma fa gis duñ ma gis ci troisième mandat léegi kooku mu wax dëgg yàlla ak li président Macky Sall yor ci responsabilité ak fi mu toll ak fi ko nit ñi di xaar nga xam ne tey jii kum ne woon dinaa la may nangam ci ay millions da koy daal di gëm nag saa si xam ne kii mën na ko am na doole ji am na force bi mën na koo def léegi bu la nee du ma def troisième mandat nga ne doo ko gëm ah loolu mooy lan. li daal yaakaar naa moo doon kii bi du jar ñuy kii bu ko defee sëy naa ñu taxawlu fii bu ko defee bu amee ñu nekk ci commentaire bi euh, ñu jéem leen euh, félicité rek delloo leen njukkal ak lépp loo xamante ni tamit xañ na juum na ko ci kàddu yi ñu kii ko sëy naa ñan ñoo nekk foofu euh, bu ko defee wala ñu kiyal nu fii bu ko defee ñu xool ba xam